comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek nabi dina leen ko toppal ku ne xam na ne démb signature ba tàng na neex na diggante Sa Thiès Eumeu Sène ak yeneen combat yoo xam te ni moom moo fa toftal sëñ Mor a xam ko ci Modou Lo combat bi nan lay def ku mu ciy ñaanal yooyu yëpp yi kan moo ci jekku ku a pare ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay baax ma kan ginnaaw ba ma sant yàlla di di sant suñu yaakaar ànd ak alaaxira muy yokk leeram tan si barkeem di nuyu waa Sénégal ñëpp

démb seetaan nga signature bi lan nga jàngat ci bi démb. waaw seet naa signature bi muy Eumeu Sène ak Sa Thiès muy mag ak xale Eumeu Sène koo xam ne ndaanaan la champion la mën bis mën lam lool nag saf lam Sa Thiès nekk xale boobu ba tey la première fois bu nekk si lamb muy bëri ko ak fuuf ba mu war a marqué empreinte pour bëri ji roi des arènes bi nekk defe su ko amee rek day dem bëri bag parce que tey xam na ni Sa Thiès su ko yàlla may ndam moom kenn mëntu koo bañ moo tax comme dina si teg bakkanam waaye kii daan moom daan na ba pare kii daan daan na ba pare. ci am kii daan. na ba pare kii daan daan na ndax boo xoolee seen taxawaay rek waaw xam ne ndam am na fu ba pare. waaw dina ko comme des na 3 mois nag. waaye gis nga kii daan yàlla sa am na fu mu féete ba pare. am na fu mu ba pare léegi nag li problème mooy naa tey fu may toogee si la naan diw mooy daan wala diw mooy daan. waaw ndam li na fu mu féete ba pare am na si camp sax xam naa waaw léegi ñu sori ba sori maa ngi ñoom si kàddu daal ba pare. ci combat boobu. waaw am na si kàddu sori nañ ba pare si kàddu ay finition yu ndaw moo si rek rek pour ñu jubóo incha allah. Hmm? Mhm. sori ngeen ci ay kàddu. waaw sori nañ moom bu baax sax. mën nañu xalaat bis boobu sëñ Sa Thiès wala mu andi Eumeu Sène. waaw mën naa sa indi mais léegi làmb tamit xam nga lu may wax rek man tay làmb lu ko yokkul yaa wàncee làmb mat naa si lépp def naa si lép léegi damaa toll fi may togg sama kër di ñaan mbër te du ma ñëw isaat

mais sama xol bi du ma si jàppal du ma arama dara du ma teel du ma arama dara te du ma lu ñaaw baal naa ñëpp muy mara yu may xeex ak muy nit yoo xam te ni dama leen déranger jégal naa ñëpp lépp lu ma waaye def wala lépp lu ma waaye barke sëñ Babacar barke Cheikh Tidiane jégal naa si xol bi sedd guy xam ne àdduna moo demee noonu lu yonent bi am woon sëñ Tuba am ko laaj ma am ko man du ko am parce que ñoom ñëpp sax am na jullit yoo xam te gëm gëm ñu leen na ñoom gëm ñu alaaj Malik amuñu woon marché sama man jëgg naa ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi àdduna amul solo. combat bi mën nga xalaat mu gaaw lool lool lool ci combat Sa Thiès ak Eumeu Sène bu gaaw lay nekk. a jege. su bëree deux minutes ci lay am. déedéet waay déedéet barke Cheikh Ousmane su amee ñaari minutes ci lay am te kii daan doy daan ba jaaxaan. ba jaaxaan barke Alxuraan Karim kii daan ba jaaxaan te du daanu si digg bi. ci saako yi ci wetu lay daanu. combat bu doy waar a ngoog. Liss Ndiago bu neex. waaw Liss Ndiago ak euh, Pokola ay xale lan nekk seen yoon di dem dina nekk combat bu bari xeex combat bu am bëri combat bëri musique. que le meilleur gagne non combat boobu que ñaar ñëpp ay champion ay xale lan nekk seen yoon di dem que le meilleur gagne si kenn. trop. combat yi bari na trop trop trop. seen bi ma caaxal li nga ne du weesu deux minutes dafa gaaw de. du ko mat yàlla seey na ko. man li may wax rek man maay làmb coole yi bari rek. coole mën naa bari. mais nan xool vidéo yu may def si làmb yëpp bis bis ba ñëwee ñu xool mi demee. bi am nga ci koo xam te ne mën nga ko ci ñaan. incha allahu rabi dinaa si ñaan mbër moom dëgg yàlla ndax sori na sori na Alioune Seye Quench boobu it waaw Alioune bu neex la moom it dinaa si ñaanal mbër tamit. <laughs> mooy buuru làmb ji nag daa mel ni de. <laughs> dinaa nga ñëwaat ci ama ama neex ñaabu ndaw. waaw. aada fas kuy. waaw combat yooyu yëpp bis yëpp am naa si mbër. ama ba léegi. <laughs> boobu daal ama ba ak Gris Bordeaux yal na yàlla def jàmm buñ ma gisee si ginnaaw Ama Baldé bu mu bett kenn. waaw. gis ginnaaw bu mu sport moo demee noonu Ama xale nekk soo yoon dem. amaan na combat tamit mooy mooy Boy Diop. Siteu bu Ngor. Boy Diop Siteu bu Ngor waaw. bari ngay combat nag. moo tax man la man tey làmb ma ñëw làmb ak moo tax suñu kër chaque dimanche ma ñaan mbër loola yàlla suñu borom dogal kon ku may xañ sama wërsëg dama koy lekk mag man ñàkk ma fay da man dépassé naa foo mbër di fay cent mille lam wala deux cent mille wala trois cent mille barke si yàpp si yàlla sa combat ñaata ngay laal dépassé naa tey man foo mbër di fay cent mille wala deux cent mille ñaal ak boobu mën a doon barke si yàpp yi mag yi ma xam ne man mënu maa perte samay temps perte samay journée say caxaan tey bu may ñaan mbër dimanche am journée lay perte journée boobu su ma toogee sama kër mën naa see lekk xaas weex la ma tax man ñàkk ma fay la du ma topp si benn mbër kaay ma ñaan la man mbër ñooñu sama ñaan ma ku ma gis ginnaaw mbër mbër bay ba démarché ñoo ñu toog sama mbër bu ma dem këram ñaari bis laa dem sa kër sa bis ëpp na presse wala sa bis làmb bu jeexee jeex na téléphone la ñuy dégg de ma xam ne aw ma bu duñ toll nii dégg na man aw war maa xarab làmb ndax làmb ma dafa lépp nag mais tey tamit mbër tam lañ doon ñaan yàlla te am na mbëram tey amatuñ jot làmb doon si làmb mais boo doon da xam ne jot làmb ñu ngi si yenn business parce que tamit da ngay yàlla te man tamit làmb teral na ma sax tey ku xam ne yokk waaw bu baax oto bu bees ah, yooyu yëpp boo ñaar rek na ci keroog boo waaw boo ñaar rek combat la bu neex combat bu neex la Reug Reug champion la nekk ndaan di dem Boy Niang doon wuti combat roi des perte ko waaw man xam naa damay. mais mais Boy Niang peese wut pour jëlaat Reug Reug peese wut pour jëlaat Reug Reug wàcc jël Reug Reug. ah mais moo war a taxaw combat moo war a taxaw mooy combat bi war taxaw parce que Boy Niang nag bu ñu fàttali mu loolu la bëri la daanu Reug Reug bëri daan ko combat bu neex combat bu neex la sama xarit bi nag maa ngi ko ci ñaanal moom Tafa Kañ mu nit ku baax la moom xam nga rek xol bee rafet daal ah, waaw non Tafa sama waale rek non Tafa sama waale wax dëgg yàlla Tafa nit ku baax la nit ku mën a joxe cër la waaw tax ma depuis seen combat ak Modou Lo lan la sa diggante baax waaw nee boobu damay wàcc boobu moom damay wàcc moom personne mën a wàcc. boobu ay ay plastique ngeen boobu damay damay wàcc ñëwaat ak jàllaabe bu xonk bi wàcc ci digg jéem bi parce que Cheikh Tidiane damay wàcc comment damay wàcc maa ngi mbër bi jubóo nañu ba dugal na avance ba pare. waaw waaw. juboo mot combat Balla ak mbër mi ba pare. jubóo na mbër bi te jox na ma xaalisam xam nga soo waxaale ak mbër mu génnee 700000 jox la. koo ci jubal ci wax amatu fa comme man samay bis day bëri coow samay bis ñëpp koy waaj léegi dama ñëpp di gis rek ëpp na presse sax bàyyi naa dem ëpp na presse ëpp na fa dem dañuy xëy gis ma ñëw si lamb barke Cheikh Tidiane bàyyi dem ëpp naa dem ëpp na presse ma xam man prouvé tuma dara si lamb ah, am ma xam man mbër fay na ma 1 million mbër fay na ma 2 millions amee problème ay jong may rafet laa oto bu seer lay dawal kër gu baax laa am. tabax mu koy yokkaat ci kaw. amee problème waaw di seetlu dara de. sant naa nga ba tabax néeg bi ngay ñaane. waaw ok dama war ñaan defal na ma lépp làmb tamit defal na ma lépp man dama xarab làmb ba ko may faatu. parce lépp lu moom sa grâce à làmb làmb ko waral ak yéen journaliste yi te maa ngi waaj benn affaire nag maa ngi waaj damaa xamul si biir koor lañ ko def wala avant koor yi yéen bu dee war comme bi nga defoon. waaw si internet yëpp ñoo maral leen ay xar ñu toog waxtaan. waaw yéen su nit ngeen parce que nag ku sant ñit doo sant yàlla te lu ma mënti am site internet yi la bu woon ñoom kenn ma xam bu lu woon ñoom du ma am 100 francs yéen ñëpp jàpp ngeen si foofu rek laa mën a fay nag ñëpp ci leen jox leen berne ngeen demee ak teraanga jox leen te incha allah loolu dañ ko programme soobee yàlla waaw. waaw loolu laa bëgg loolu laa xool damaa bëgg def ko dernier jour bi wala def ko si biir koor gi ñu def ko ndogu parce que ñëpp ñëw ñu teral leen su ko defee sax ci si cortège yi mën see gënaale waaw ñu teral leen bu baax baax yéen mënu maa wax si leen lu baax. du ma toog fi leen xarabee du ma fekk fi leen xarabee te ku gore nag waaw. nga wax ci lu ñaaw mu bari bari parce que am nit ku baax la moom sama waay la waaw loolu mooy àdduna làmb day defar waaye warut yàq te mënuloo booñaa su ma si ñaaw wala nga wax si ñaaw bu jeexee ñoom ñooy àndat jeex na ba mënuloo tëral booñaa ñu bokk ndey bokk baay kan la non ah mooy fii roi parce que moo daan mënuloo. waaw instant yii moom Modou Lo moom li doon ndax am daan na Modou Lo waaw am daan na ko instant yii nit ku baax la. waaw non nit amul ku social la boo gisee xam na lépp. Modou lépp la xam. boo gisee information Sénégal Sénégal laa wax Modou boo ko fekkee si mbooloo boo ko ñaan may. boo wéetee boo ko ñaanee booy ñibbi billaay walaay moo la jox loo xam ne nga ciit ñëpp la ko def te bu la joxee nga ciit du la jox mukk ñaax fee la barke Cheikh Tidiane mu loolu mu loolu lu muy dox si ay social intervention li muy régler police laa la wax intervention laa la wax xuma ne police hôpital ak ordonnance mu fay jënd barke Cheikh Tidiane social bi muy def si kasa yi. ñëpp xam na ñëpp ndeke a te kenn xam ko ah kooku kon lan la Modou Lo lan la man loolu mooy sa borom Modou Lo lan la. lan la gars yi nañu wàllu la de. Modou lan la. Ah? moo tax ñuy ñaan yàlla na ko daal sàmm yàlla aar ko la ko cat yow ma ngi itam di la sant bu baax waaw nee nañ Modou Lo Sekki waaw Modou Lo Sekki waaw wax na Modou kan la Modou Lo mooy kan que daal Modou Lo moom mission na ma trop waaw di sant tamit nabi nit ku baax la moom waaw ah, moom suma waay la suma lépp la yaa ma kañ moom suma déetee waxtuma ko àdduna yëpp xam nañ ko waaw billaahi àdduna yëpp xam nañ ko ñu bari dana ma sa waaw waaw billaahi waaw te damay diggante yow téléphone ñu waxtaan si leneen leneen leneen waaw da nga àdduna dafa doy waar di la sant bu baax di la gërëm yow ma ne si di sant mi jaram yi nga mooy tudd tey di ko ñaan doom yi tudd tey yàlla may ko gudd fan ko yàlla aar ko ba ñaaf di ko muur mi sëy si barke Muhammad waaw kon ko boobu di moom bu soobee yàlla bis ko tax moom ñëppay waaj insha allah rabbi jërëjëf jërëjëf nabi ci technique bi am ci cadrage beeg yooyu moom ñu ko géré woon ci la bokk jërëjëf nabi xam naa ne téye nga loo bëgg loo miin lii natt la nag suñu borom la ci nattoo waaye loo bëgg la tamit jërëjëf nuyu Adama Jara ko yalla doom ji jundu am ndey ak baay xam nga ndax man lañ ko bàyyee la bañ koy muur ba muy sëy ja bay ñaan taxaw di ko yedd ak yooyu jërëjëf jërëjëf